waaw na ngeen wax ci assemblée bi nga xam ne ñu ngi sàcc alalu askan wi. ndaxte ku bañ ñu contrôler budget assemblée nationale d'accord ku bañ ñu contrôler ko ça signifie que yow am na li ngay nëbb te li ngay nëbb ça peut être aisément aisément compris ñu ngi détourner alalu askan wi donc nañ ci jàpp ñu ñëpp nañ ci jàpp du mbiru député yi mbiru askan wi la. voilà dox bi lan moo ko waral justement pour que euh, mbooloo mi gën a comprendre. waaw tey euh, man Guy yu Sagna. député bu quatorzième législature bi euh, bokk coalition Yewwi Askan Wi euh, bokk Pastef dama ne tey damay dox pour dem liggéey. marche su ma de maanaam 10 heures amul benn problème amul benn problème. kon assemblée nationale la ñuy liggéey. mais dama lay laaj mais conseil des ministres ban heure la ndax conseil des ministres mais ki heures lay liggéey. mais tontu ma de. non dama <laughs> maanaam. boo buggee xam man li may liggéey da ngay xool lii mooy li yeewi askan wi def 138 initiatives gouvernement bi tontu mu tontu rek 27 kon am na 111 laaj yoo xam ne yeewi askan wi def na ko téeméer ak fukk ak benn groupe parlementaire yeewi askan wi teg ko ci table bi gouvernement bi tontu ci ñaar fukk ak juróom-ñaar kon mbir mi du question waxtu. dama décidé génn sama kër waxtu boo xam ne bu may dox ci mbedd bi naa tasanteeg askan wi ndaxte dox bi du rek pour dox. dox bi pour waxtaan ak askan wi la. loolu moo nekkoon léegi nag damay dox tey pour dem assemblée nationale ngir ñaawlu assemblée nationale bu doxul damaa bëgg assemblée nationale bu Sénégal dox moo tax tey may dox pour dem liggéeyi ndaxte kat man may premier vice président commission comptabilité. contrôle et comptabilité du budget de l'Assemblée nationale est-ce que xam nga ne depuis 12 septembre commission boobu musul taxaw musul réunion dinañ ma ne commission boobu sax du septembre lañ ko taxawal waaye biñ ko taxawalee ak léegi waroon nañ déposer ñaari rapport ñaari rapport waroon nañ recevoir ay pièces justificatives fu mu nekk nii bëgguñu woote réunion ndax lan ndaxte ñu ngi sàcc alalu alalu askan wi ci assemblée nationale ñu ngi détourner alalu askan wi ci assemblée nationale moo tax bëgguñu woote réunion commission euh, mais comptabilité et contrôle du budget de l'assemblée nationale. li ci gën a métti mooy. bëgguñu ñu contrôler ko. bëgguñu ñu woote réunion. merci beaucoup bëgguñu woote réunion ndax lan li ma wax ñu teg si ñuy joxe ay suukaru koor jàpp ngeen ne yoon la yoon la fi réew mi toll askan wi am jafe-jafe pour lekk askan wi am jafe-jafe pour solu. askan wi am jafe-jafe pour euh, pour faju ñu teg assemblée bi ñeenti weer ba pare ñuy séddale sukkaru koor ñu naan déet ñuy seddale ay billets pour dem aji Rome ñuy séddale ay billets pour dem aji Makka jàpp ngeen ne loolu yoon la loolu xam nga nu mu tudd pàccoo loolu xam nga lu mais nu mu tudd détournement ndaxte assemblée nationale xaaruñu ko ci séddale sukkaru koor ak ci séddale billet Rome ak billet Makka. dañ ko xaar baaxu assemblée nationale na nag. waaw justement ñun bi ñu askan wi di fal 31 juillet 2022 fal ñu yónni ñu te yàkkamti ñu c'était pas pour ñuy séddoo suukaru koor c'était pas pour ñuy séddoo ay billet Mac c'était pas pour ñuy séddoo ay billet Rome c'était pour ñuy séddoo jafe-jafe askan wi c'était pour ñuy cambar jafe-jafe askan wi c'était pour que ñuy waxtaanee jafe-jafe askan wi et non waxtaanee kan mooy am suukaru koor ku am suukaru koor ñaata suukaru koor la ñuy am et waxtaane waxtaanee mooy am billet Makka kan mooy am billet Rome ak kan moo war a am billet Rome ak ñaata billet Rome mais honorable est-ce waxtaan nga ci ak seen yeneen naataangoo euh, député yi tam mais dama lay laaj man bi may nangu nekk député est-ce que dama si waxtaan ak ay li ma bëgg a wane foofu mooy nekk député c'est d'abord une responsabilité individuelle nekk député sa diggante la yow ak askan wi d'abord sa diggante la ak yàlla d'abord après nag mu nekk yow sa diggante ak say naataango man am naa sañ-sañ ne damay dem liggéeyi tey te damay dox ndax assemblée nationale bi doxul manifesté wu ma nag rassemblement wu ma nag sitting ma nag damay dox pour ñaawlu assemblée nationale bu Sénégal bi nga xam ne doxul te li koy firndeel mooy depuis juillet deux mille vingt deux ñu ngi génnee xaalis di dugal xaalis te nanguwuñu ñu contrôler assemblée. assemblée nationale bu nanguwul moom ñu contrôler ko moom nu muy contrôler gouvernement du Sénégal assemblée bu nanguwul moom contrôler boppam. ban légitimité ak ban autorité ak ban dignité la am pour contrôler président Macky Sall dem Dembo Ndiaye la seen collègue wax ne président Macky Sall recevoir na jigéenu parti réew mi seen naataango ne joxe nañ cinquante moom président Macky Sall jox na cinquante millions jigéen yooyu man am na laaj boo xam ne laaj naa ko gouvernement bi dama ne président Macky Sall fan la joxe cinquante millions yi fan la ko jëlee fan la jëlee cinquante millions yooyu ndaxte président Macky Sall du fayeeku cinquante millions donc mënul nekk xaalisam man posé naa question ci jàmbaar yi demoon Sénégal te juróom-ñeent fukk ak ñett gaañu ci ah ñu joxe ñu joxe xaalis gouvernement joxu leen tous ba tey ba tey ñu demoon guerre du golfe ñu représenté askanu Sénégal ñu représenté état du Sénégal ba juróom ñeent fukk ak ñett gaañu si seeni doom nekk fi seeni jabar nekk fi ay veuve ay njirim ñu jot xaalis ba léegi jàmbaar yi jotaguñ ko mais posé nañ ay question ci lu jëm ci napp gi posé nañ question ci lu jëm franc CFA bi posé nañ question ci lu jëm euh, onze chefs de division yi nekk agence de sécurité de proximité yoo xam ne ñu ngi tekk weer bu nekk quatre cent mille ci seen payoor posé nañ question ci lan moo tax dëkk yu bëri ci Sénégal amuñu courant ak kañ lañuy am courant posé nañ question ci waaw gouvernement du Sénégal ginnaaw bi nga xam ne euh, Cour des comptes nee na dafa am ay ministre ak ñeneen ñu dul ministre yu luubal alalu Sénégal jamono bi ñuy naan restez chez vous jamono bi ñuy naan nañu tëj jàkk yi tëj jumaa yi tëj église tëj bois sacré ñu luubal alalu Sénégal. Cour des comptes wax ko man ak Aminata Touré boobu mu ngi nekk député wax nañ gouvernement du Sénégal na nga ñëw wuyu si fii ci assemblée nationale ba tey. est-ce que xam nga ne am na ay questions yoo xam ne dañ ko posé gouvernement du Sénégal ça fait sept mois sept mois amul tontu depuis mois d'octobre loolu nag. dafa am solo buñ ci tollee askanu Sénégal xam li xew biir assemblée. mais actuellement pàccoo moo fa am. actuellement sàcc moo fa am. luubal moo fa am. le bureau de le bureau de l'assemblée nationale convoqué nañ ko. léegi nag xam nga benn convoqué bi warul tax coow li jeex ndaxte li ma la wax garaaw na depuis décembre gouvernement mu ngi doxal justice mu ngi doxal kenn rek moo doxalul muy assemblée nationale ñaari téeméeri réew moo am biir àddina bi. Sénégal mooy mennam réew le seul pays ci ñaar téeméeri réew yi yoo xam ne boo xam ne depuis ñeenti weer assemblée bi doxul mais loolu du dëgg du yoon. mais yaakaar que ni comme euh, le bureau de l'Assemblée nationale. aw ma si benn yaakaar xam nga lu tax ñi kañ depuis depuis décembre ban groupe parlementaire nga dégg muy naxarlu muy métitlu ñeenti weer yi ñu toog te woote wu ñu réunion ban groupe parlementaire benn. ki woote ñoo tey fu mu bokk Benno Bokk Yaakaar kon ndax am ngeen yaakaar ne dina méttitlu dina naxarlu dina amandé wu dina baalu ak ndaxte dafa war a baalu ak askan wi yëpp parce que ça veut dire que ñeenti weer a ngi waxtaanee wuñu euh, yitte askan wi jafe-jafe askan wi ci ci biir assemblée nationale loolu lay tekki. mais honorable tam pourquoi pourquoi les les les les partis politiques pourquoi ñuy affiché wu ci ci assemblée nationale foo xam ni euh, ndaw réew mi yëpp rek lañ wax amul APR amul euh, réew mi amul amul lenn pourquoi kenn ku nekk naan naan ay groupe parlementaire benn bokk yaakaar groupe pourquoi. mais loolu député du peuple. waaw mais loolu loolu ñaar laa ci tontu benn bi mooy yow xamee nga mu bu baax a baax moytu leen daanu moytu leen daanu yow xamee nga mu bu baax a baax mm-hmm. xeex yi may fekkee. seetuma ci APR ak kudul APR xeex yi may fekkee cause yi may défendre conférence de presse yi ñuy organiser marche yi ñuy organiser seetuñu ci ndax ñi ñuy àndal ñi ñuy noot ndax APR la ñu bokk am déet ndax Pastef la ñu bokk am déet donc man mënuñu ma laaj lan moo tax député yi di affiché wu mooy benn ndaxte man man dama nekk député pour askan wi yëpp samay naataango yi nekk groupe parlementaire yeew yi bu ñu posé benn question ci napp gi mais nappkat yi am na ñu ci bokk APR am na ñu ci bokk réew mi donc ñun taxawaayu député du peuple la ñu am taxawaayu ndaw yi askan wi lañu am ñaareel bi mooy constitution règlement intérieur bu assemblée nationale charte réew mi moo may député yi ñu organiser wu en groupe parlementaire code électoral constitution du Sénégal charte réew mi moo ne pour nga bokk ci élection da ngay dem candidature indépendante wala ñu porte la par parti politique donc loolu du lu ñaaw loolu du lu ñaaw donc loolu ce n'est pas illégal ce n'est pas illégitime donc wax ji du foofu xam nga wax ci mooy foo mun ci bokk ndax yaa ngi teewal askan wi yëpp te du am xaj ak seen. ñun askan wi loolu moo intéressé. loola voilà loolu mooy li am solo or député bu mel ni man Guy Marius Sagna kenn mënu ma soupçonné ne d'accord man li may wax mooy rek li concerné. ay sénégalais yi bokk bii parti wala yu bokkul bii parti. xëy na exception bi nga xam te ni mooy mooy confirmer no non foogu ma ne exception la xëy na man waaw damaa gën a wex dunk rek <laughs> xëy na man damaa gën a bëri coow rek xëy na man euh, damaa gën a damaa gën a damaa gën a fës rek d'accord waaye am na yeneen député yoo xam ne ñu ngi def seen liggéey nu mu waree waaye bésub tey bésub tey li am solo ñu wane ko mooy. Euh, Yewwi Askan Wi déposé na vingt six questions d' actualité question d' actualité mooy question yi nga xam ne gouvernement dafa waroon ñëw sur les vingt six questions d' actualité gouvernement ñëwul benn yoon li am solo mooy ñu wane ne Yewwi Askan Wi posé na trente questions orales li ñu woowee question orale mooy laaj yoo xam ne gouvernement dafa war a ñëw tontu ci weeri question orales yi tous dara y a problème ça fait cinquante six questions d' actualité et orale li ci des nag mu am cent onze cent onze laaj yoo xam ne sur cent gouvernement bi tontuwu ci. sur cent trente huit questions téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti laaj yi groupe parlementaire Yewwi Askan Wi laaj gouvernement du Sénégal ñaata la ci tontu ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu moo lay wan am na ay député yuy liggéey loolu moo lay wan député yaa ngi xat seen tànk tubéy loolu moo lay wan ne groupe parlementaire Yewwi Askan Wi depuis Sénégal bi mu moomee boppam am indépendance ak léegi amul benn benn groupe parlementaire bu def liggéey bi Yewwi Askan Wi def amul benn liggéey amul benn député depuis 1960 ak tey depuis sax bien avant indépendance ndaxte Sénégal amoon na ay député ca assemblée nationale bu France avant indépendance mais amul benn député ci histoire du Sénégal Blaise Diagne premier député à l'assemblée nationale francaise député noir boobu ba tey amul benn député bu am taxawaayu député Yewwi Askan Wi benn waaye ñun c'est pas seulement am taxawaay bu baax moo ñu tax a jóg ñun dañoo bëgg a liggéey ñeenti weer nga tëj assemblée nationale bi lu tax ngay fay député yi weer bu nekk ñu ngi fayeeku lan moo tax député yi di fayeeku te fekk ne d'accord tëj nañ assemblée nationale. mais tëj bi lan moo ko waral. li ko waral ñaar la mooy benn président Macky Sall ndaxte moom moo tëj assemblée nationale dafa mere askan wi li mu. kon séparation des pouvoirs amu fi quoi. non am na exécutif buy tëj euh, législatif. li fi am mooy président Macky Sall buy tëj législatif buy watat judiciaire li am mooy lu ñuy woowee présidentialisme néocolonial. mooy ñun réew Afrique yi rawatina ñun Sénégal dañoo am ay président yoo xam ne ay buur lañu ay barak lañu ay téeñ lañu maanaam dafa mel nii dafa ñu delloo ci ci ginnaaw am président boo xam ne mooy buum di buum mi mooy buum di buum mi mais mais honorable fan nga tekki nii c'est le président Macky Sall moo tëj moo tëj ci man foofu c'est ça ma question quoi. mais que ni yoonam newul ci assemblée nationale moom pourquoi mu ko pourquoi ngeen moom moo ko tëj. yow est-ce que am nga yaakaar ne. est-ce que am nga yaakaar ne benn député am na sañ-sañ ñu ne ko yow yaa jiite commission buy saytu xaalisu assemblée xool ndax niñ koy saytuwee jaar na yoon moom rek ci 18 millions de citoyens sénégalais mu ne du woote réunion commission boobu ndax ndax foog nga ne député boobu ci moom rek am na fit boobu. non mais yow yow convaincre maa ngi ñëw maa ngi ñëw dama la bëgg wax ne acte yooyu yëpp fi mu jóge mooy ci président bu amee benn député. bu amee député Benno Bokk Yaakaar bu ne ñi war a xool ndax xaalisu askan wi ci assemblée nationale ñu ngi koy saytu nu mu waree c'est parce que assemblée président Macky moo leen may fit. comment le 12 septembre xam nga li xew fii yëpp daf ñuy wa daf ñuy fàttali li xew 12 septembre. 12 septembre 2023 bi ñuy taxawal assemblée nationale coow li bari woon na léegi nag lañuy ñuy soog a xam lan moo tax président Macky Sall dugal armée biir assemblée nationale ngir ñu tànn. président bu leen neex parce que fallait que ñu am président boo xam ne d'accord luñ ko wax mu def lu ko président Macky Sall wax mu def. mooy bés ba ngay ñaat ba kees kees mooy bés boo xam ne ñu ngi doon lank di bañ ba tëdd ci suuf ne ministre. koo xam ne nekk na ministre nekk député warul teew biir assemblée nationale warul bokk ci ñii di tànn mooy bés bi nga xam ne dañ doon wax ne armée warul dugg biir assemblée nationale. mooy bés bi nga xam ne dañ doon wax ne ni ñuy tànnee président assemblée nationale jaarul yoon léegi nag la askan wi war a comprendre ne bés boobu ndekete li ko waraloon lenn rek la lenn rek la mooy nañu tànn koo xam ne lu ko président Macky Sall sant mu def lu mu ko wax mu yëkkati mu yëkkati lu mu ko wax mu bàyyi mu bàyyi bu ko waxee ubbil mu ubbi bu ko waxee tëjal mu tëj bu ko waxee tëjal assemblée nationale ñeenti weer mu tëj assemblée nationale ñeenti weer. réunion bureau nag bi ñu wootee tey assemblée nationale dama jàpp ne c'est une bataille gagnée seen seen assemblée nationale dañ ko tëj de. waaw waaw ñeenti weer a ngi ñeenti weer a ngi depuis décembre assemblée nationale dañ ko tëj député yaa ngi fayeeku député yaa ngi séddoo suukaru koor ñu ngi séddoo billet mag ñu ngi séddoo billet ram te ñeenti weer a ngi doxul moo tax nag comme assemblée bi doxul maa ngi dox jëm assemblée nationale. yéen nag na ngeen ko xam yéen population bi na ngeen xam ne assemblée bi seen assemblée la. assemblée bi du affaire APR assemblée bi du affaire Benno Bokk Yaakaar affaire askan wi la donc assemblée bi bu mënul woote réunion pour waxtaan jafe-jafe askan wi mbiru njàng mbiru wér-gu-yaram ak ñoom seen ak social bi ak ñoom seen ak ñi ñuy tëj kaso ak yeneen assemblée bi d'accord si loolu la war a waxtaanee et non tëj assemblée bi di joxe ay suukaru koor ak ñu ñàkk fayda donc loolu moo tax yéen da ngeen ko war a xam waru leen ñu seetaan ñun rek fële am na fu muy toll am na fu muy toll war ngeen ñëw wax ak waa assemblée ne leen dégg nañ ne da ngeen di séddale suukaru koor fekk ñun suñu ndekki doyul fekk ñun suñu añ doyul fekk ñun ñu reer assuré wul fekk ñun ñu ngi reeree ay fonde ay ndambe yu amul xorom ay fonde yu amul sow yu amul suukar fekk ñun am nañ jafe-jafe pour faju luy ndeyu yéen ngeen nekk ndaw ah. ñu tànn leen yóbbu leen ngeen di séddale seen biir ay billet màkk ak billet rom te ñun ñi nga xam ne ñoo leen yónni ñun amuñu billet Makka amuñu billet Rome amuñu lu ñuy fajoo seen wax la de bu leen ñu seetaan bu leen ñu seetaan de bàyyi leen seetaan bi ndaxte seetaan bi dafa mel ni da ngeen ñuy sot dafa mel ni da ngeen di jàppale président Macky Sall ci tëj bu mu tëj assemblée nationale maa ngi jëm assemblée nag def leen li leen war ñu ànd def lu ñu war jërë ngeen jëf oui waaw waaw. honorable waaw. waaw léegi est-ce que mën nga jël numéro téléphone kii. non non maanaam sama yóbbante mooy nga laajal ma ministre de la commerce. waaw ñun lu tax inflammation prix yi kenn. inflation inflation waaw. inflation prix yi day jug. ñaareel ba santé warum faja feebar faju dugg hôpital mooy dee ñaar yooyu dong laa soxla. sa laaj bi ak sa yóbbante bi naa la ko yóbbul waaye dama bëgg nga xam ne ñeenti weer a ngi bëgguñu woote réunion pour ñu waxtaanee yii balaa nga naan naam ne kon yéen itam bu leen ñu yóbbante rek bu leen ñu yeb rek yeb leen ñu yóbbante leen ñu waaye itam fu mu cangee fu mu bloqué na ñu war a ñëw jàppale ngeen laakarti ko ngeen débloqué ko te waa waa Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall dañoo bloqué assemblée nationale ñu waxtaan suñu biir débloqué assemblée nationale du dëgg du yoon. effectivement d'accord sa yóbbante naa ci am taxawaay bu mat sëkk. léegi li ci des nag jëlal numéro téléphone. Euh, am monsieur monsieur le député. waaw je suis un inspecteur. qui a été licencié récemment. Inspecteur de de contrôle aux normes des installations électriques au niveau du COJEL Senelec. OK. Monsieur le euh, monsieur monsieur le député, nous vous écoutons et nous vous entendons partout. Vous êtes en train de défendre une cause noble. Et nous, en tant que jeunes, on est derrière vous parce que le pays va mal. Et le président de la République doit régler la question des licenciements abusifs. Parce que vous qui êtes député encore une fois, il faut l'exposer au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les licenciements abusifs sont fréquents ici au niveau du Sénégal. En tant qu'un jeune diplômé, en tant qu'un universitaire, en tant qu'un jeune qui a fait l'école polytechnique de Dakar. J'ai été licencié par le directeur général Mamadou Lamine Dia en me remettant des faux usage de faux et falsification de documents. Actuellement, actuellement vraiment nous sommes vraiment très très très échanger numéro de téléphone ak kii comme gën a yaatal bi li passé. voilà dégg naa sa wax bu baax a baax. voilà voilà jërëjëf ci encouragement. moi je me nomme inspecteur Biram Ndong. jërëjëf Ndong voilà je au niveau du COJEL Senelec. voilà on va travailler merci beaucoup. donc mbokk yi gis ngeen yéenay dégg askan wi yéenay dégg bëgg-bëgg askan wi yaa ngeen di dégg jafe-jafe askan wi yaa ngeen di dégg li nga xam ne askan wi moom la bëgg léegi nag wax ji mooy ndax mun nañ toll ci réew moo xam ne lépp urgent lépp urgent ñu ngi bokk ci euh, ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi gis ngeen yàggul torop sànq kii mu ngi wax inflation bi inflation mooy lan lépp cher inflation mooy lan lépp cher gis ngeen benn classement buy wane ne ci Afrique réew bi nga xam ne moo gën a cher le réew bi nga xam ne moo gën a cher le lépp mooy Sénégal waa léegi ñun bu ñu nekkee ci réew moo xam ne askan wi dafa sonn dafa damm toll ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën ndóol ci àddina bi ndax war nañ tëj assemblée nationale ndaxte askan wi mënul dem ca palais présidentiel réunion assemblée. ñu ngi lay interpellé ñu ngi delloo siyaar. ñu lay sant ñu lay gërëm. monsieur le député ñun deux roues lañ yor quoi. mais ñun sonn nañ si tali bi. nekk non man càccaguma sax. mais am na sama mbokk yi ñu ngi càccag quoi mais gars yi fi ñuy jàpp xamee ñu koy càccag xamee ku du càccag. veille tabaski bii passé Korité bii passé bientôt gars yi dañuy jàpp xam la la ñuy wax dañuy liggéeyal suñuy bopp xoolee ñu jox pourtant gars yi dañuy yor seen moto di si daan seen doole quoi dafa part à part ñeneen di si daan ay borom kilifa yor ko mais gars yi dañu ko autorisé ñëpp ut këyit nekk si bord réglementaire wàññi gars yi këyit yi gars yi ut këyit gars yi sonn nañ si kaw tali bi gars yi dañu lay jàpp rëbës nga génnaat point ñu jàpp la xam amul reçu amul dara ah, bi la da ngay fay amul sa bopp la non kayit bu permis mooy sa man am naa kayit mais permis la amagul. dafa amuloo permis. amoo waroo dawal d'accord nga. waaw d'accord naa si loolu kon bu ñu jàppee kenn mënu ah, léegi mais dañ lay jàpp. waaw infraction d'accord naa mais dañ lay jàpp point E fay 2000 nga ñëw rëbës ñu jàppaat la nga fay 2000 maanaam fi la jàppee da ngay yëkkati joxe nii la ñu jox la sa caabi. amul reçu amul dara. journée bi mën na jàpp presque. laa ciy wax bi ci njëkk. utal permis. waaw mooy yoon ñaareel bi dégg naa li nga wax incha dinañ ci am taxawaay bu ci war fële ci assemblée nationale ñun ñëpp nañu góorgóorlu te na nga xam ne assemblée nationale tëj nañ ko ñeenti yoon député Macky Sall yi muy waa Benno Bokk Yaakaar ñeenti weer ñeenti weer mu ngi nii tëj nañ assemblée nationale député Macky Sall yi nag muy député Benno Bokk Yaakaar tappale lañ fa nekkee fexe ba bu ñu waxtaanee mbiru askan wi lii ngay wax nii bu ñu wootewul réunion plénière duma ko mun wax te yii nag la ñu bañ ñu waxtaanee foofu jafe-jafe askan wi la bañ ñu waxtaanee foofu donc yéen itam bu ngeen yégee ne assemblée dajewul woote wu ñu réunion plénière depuis décembre waru leen ñu seetaan ndaxte bu boobaa ñun li nga ñu yóbbante dinañ am jafe-jafe pour yóbbu ko dégg nga wax ci utal permis nag jërëjëf. donc euh, gis ngeen euh, ñun ñëpp ñoo déggandoo. population nag kenn ku ne am nga sa doléance bopp. mais 18 millions de citoyens sénégalais 18 millions de revendications 18 millions de préoccupations 18 millions de besoins. bi ci nekk nag bi ci nekk nag am am solo bi ci nekk am fulla bi ci nekk am fayda mais loolu fan lañ koy réglé assemblée nationale ci la bokk li ma doon wax sànq mooy lan mooy askan wi mënul dem palais de justice ne lii mooy sama jafe-jafe askan wi mënul dem conseil des ministres donc askan wi lan la am assemblée nationale askan wi lan la am fal ay député am le 31 juillet 2022 fal leen nu mu leen war a falee yóbbante leen yónni leen te yàkkamti leen donc assemblée nationale waruñu ko yàq. amul bàyyi amul bàyyi ñun ñëpp nañ ci jàpp. donc assemblée nationale waruñu ko caaxaane waruñu ko tëj li xew assemblée nationale depuis ñeenti weer coup d'état la coup d'état constitutionnel la coup d'état institutionnel la. lii mooy wax ji buñ ko waxee moom la buñ ko waxee loolu la coup d'état constitutionnel coup d'état institutionnel mooy lan mooy lii askan wi wax. li tax askan wi taxawal assemblée nationale li tax askan wi dem élection le 31 juillet c'était pas pour que nekkuñu vacances ñu ngi ci biir session bi nga tëj assemblée bi après nag nga jékki-jékki rek naan da ngay woote réunion foog ne coow li dina jeex coow li tey coow li commencé gul sax coowal assemblée nationale bi commencé gul. commencé gul sax bu dee ñoom dañoo jàpp ne dañoo woote réunion bureau tey ngir foog ne. dinañu sànni benn yax sànni benn yax et ñu toog noppi ñu toog seetaan ñu tàccu boobu ñu ngi ñu ngi nax seen bopp. coow li commencé gul ndaxte faw ñu wax ñu luy ndeyu ñeenti weer ñu tëj assemblée nationale luy ndeyu ñeenti weer waxtaanee ñu mbéyum Sénégal luy ndeyu ñeenti weer waxtaanuñu fajum Sénégal luy ndeyu ñeenti weer waxtaanee dëkk yi amagul ndox yi amagul courant. luy ndeyu ñeenti weer waxtaanee wuñu. licenciement yu bëri du du dañ ngeen licenciement yi. licenciement yi mu ngi taxaat naa sa biir Sénégal. honorable yow li waral nga war a dox. dem sa bureau ah, dem assemblée nationale moo nekk nii depuis ñeenti weer yaa ngi fayeeku te liggéey wóolo te loolu dalaa naqari donc loolu nga bëgg a partager ak sénégalais beneen bi mooy waaw li ma bëgg mooy déjà am na sax ay citoyens yu commencé xam li xew assemblée nationale waaye doyul waaye doyul comme askan wi moo ñu yónni ñun faw ñu informer askan wi xamal leen ne assemblée nationale détournement moo fa am luubal ak sàcc ak toje askan wi moo fa am et que ñoom ñu am si taxawaay bu mat sëkk ndaxte damay fàttali ñun député suñu patron mooy askanu Sénégal suñu patron mooy askanu Sénégal suñu patron nag bu ñu yónnee bu ñu yóbbantee tànn ñu ndaw ci 18 millions de citoyens sénégalais 165 députés ci 18 millions de citoyens sénégalais gënuñu muus kenn ñu am diine kenn ñu jub kenn ñu am xel kenn mu tànn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom député ci 18 millions de citoyens sénégalais bu ñu amee jafe-jafe dañoo war a dellu siwaat ci patron bi. léegi convocation euh, bureau assemblée sax bu tey bi nii yaakaaroon ni euh, dina nekk occasion pour que yéen. ngeen mën a plaider li nga xam te ni moo leen ci metti maanaam pourquoi depuis quatre ñeenti weer liggéeyu leen. Euh, est-ce que gis nga ko ci ordre du jour bi ordre du jour defe naa Sénégal yëpp mais d'ailleurs sax est-ce que gis nga leen est-ce que seetlu nga benn affaire assemblée bi muy nekk assemblée ba tey est-ce que mës nga gis citoyen sénégalais yi di séddoo convocation bureau assemblée nationale. seet leen rek yéen journalistes yi yéen acteurs de la presse ndax mës ngeen fekkee car macha allah yow war nga am juróom fukki at. bu teg sax. du dëgg donc est-ce que mus nga fekkee fu askan wi di séddoo convocation assemblée xam nga lu muy tekki askan wi dafa am yaakaar ci assemblée bi. ça veut dire que ñun député quatorzième législature particulièrement député opposition particulièrement député groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dañoo def liggéey bo xam ne nous sommes en train de réconcilier le peuple avec son assemblée nationale nous sommes en train comment allez-vous ça va nous sommes en train de le peuple avec son assemblée nationale. et donc sama maa ngi commencé jot naxe sax en xamatuma laaj bi. parce que commandant bi euh, commandant euh, euh, police Médina police Médina commissariat Médina moo lay moo lay woo. ah da ko dégg. Ah, non yow. <laughs> waaw xëy na dinañ xool lu mu bëgg. dañ ko dañ ko ah dañ ko bari ok merci beaucoup. waaw laaj laaj bi lanati la woon. laaj bi ma nekkoon nii est-ce que tey jii convocation euh, nekkul occasion bu war a tax yéen mën a ngeen mën a lay wala ñu teg seen loxo loo xam ni euh, ëllëg ci biir kenn dootul tëj assemblée national aw ma si yaakaar parce que sino kon ci ordre du jour bi dañoo waroon bind d'accord ci point à l'ordre du jour yi. dañoo waroon bind ne dinañ waxtaanee ñeenti weer yi ñu wootewul réunion dégg nga wax ci or bureau. assemblée nationale dafa war a daje gën saa benn yoon weer bu nekk comme ci convocation bi nga liir bi ngeen liir yéen ñëpp gisu leen fi ñu ne dinañ waxtaanee ñeenti weer yi ñu tëj assemblée nationale kon noo amee yaakaar ne dinañ ko waxtaanee. xam naa ne yow Abdou Fulataal ba toll di nga fa énoncé. waaw mais yow ñoo xam ne dañuy dugal armée biir biir assemblée nationale ñoo xam ne nee nañ président assemblée nationale moom moom mooy fixer ordre du jour bi. ñu wax la ne ci bureau bi ñoom ñoo ñu si ëpp doole waaw wóor na ma ne que député yi nga xam ne ñoo bokk bureau assemblée nationale dinañ am fulla ak fayda ñu jéem a soppi ñu jéem a amender ordre du jour bi waaye aw ma si benn yaakaar aw ma si benn yaakaar ndaxte koo xam ne métit lu woo joytu loo naqarlu wuloo ñeenti weer yi nga xam ne amul réunion d'accord du réunion bureau boo xam ne ordre du jour bi bokk ci ci nga nar a waxtaanee loolu donc aw ma si yaakaar beneen bi mooy boo xoolee ordre du jour bi dañuy bind ci benn tombe code de conduite pour les questions d'actualité et les questions orales or wax naa la sànq ne am na lu ëpp juróom fukki laaj question d'actualité ak question orale yoo xam ne posé nañ ko kenn indiwu si ay tontu waaye tey duñ ko waxtaanee xam lu ñuy waxtaanee léegi naka la ñuy saytuwee loolu te code de conduite say boo ko déggee assemblée mooy ñu ngi bëgg wàññi sañ-sañu assemblée nationale ñu ngi bëgg a wàññi sañ-sañu député yi donc pour man loolu piège la pour man loolu ndëgg sërëx la pour man loolu euh, manigance la ngir wàññi euh, sañ-sañu assemblée nationale waaye tey xam naa ne député opposition yi rawatina député yeewi askan wi dinañ am taxawaay bi ci war ci réunion bi waaye awma benn yaakaar ci député Macky Sall yi mooy député euh, Benno Bokk Yaakaar yi donc loolu mooy mbir mi et donc foog ñu naxarlu ko ba pare delloowaat lépp ci loxo askan wi delloowaat lépp ci loxo askan wi. ndaxte askan wi mooy buum di buum mi. askan wi mooy le peuple souverain. askan wi moom mooy voté. moo tax tey ma fas yéene delloo lépp ci loxo askan wi. delloo lépp ci ñi nga xam ne. ñoom ñooy fal ñi nga xam ne ñoom ñooy fol yi. effectivement donc loolu moo tax tey ma ne ah damay dem sama bërëbu liggéeykaay sama bërëbu liggéeykaay nekk assemblée nationale d'accord nit nag. buy dem bërëbu liggéeykaayam am na sañ-sañ demee foofu nu ko neexee li tax ma taamu ci tey bii c'est parce que damay dox ngir fësal ne assemblée nationale bu Sénégal doxul damay dox ngir fësal ne député assemblée assemblée nationale bu askan wi doxul loolu moo tax ma taamu bii ñaareel bi mooy daf may permettre ma waxtaan ak askan wi daf may permettre ma waxtaan ak askan wi xamal ko li nga xam ne moo xew assemblée nationale bu leen ko soofantal depuis septembre 2012 mosuñu contrôler budget assemblée nationale ñu ngi sàcc alalu askan wi ñu ngi détourner alalu askan wi ba pare ñu koy séddoo di ko paccoo seen biir ñun député yi ñu koy séddoo di ko paccoo seen biir loolu moo tax dafa am solo ñu delloo lépp askan wi askan wi nag dama koy waxaat warul toog seetaan ndaxte bu seetaanee sot askan wi dafa war a wax waa assemblée nationale nekk leen nit. bu ñuy taxawal assemblée nationale Sénégal c'était pas pour ça bu ñuy taxawal assemblée nationale Sénégal c'était pas pour ñuy détourner xaalis bi c'était pas pour ñu koy tëj donc lii moo tax ma ne damay dox si jàmm ak salaam. dem assemblée nationale. askan wi gën a xam. honorable yaa ngi dox. dem ci sa bureau assemblée nationale mais tamit euh, ñu fàttali ne askan askan bi euh, askanu Sénégal que ni askan wi jox nañ loo oto boo xam te ne nii moom nga war a dem di liggéey de waaw donc euh, attention attention. léegi nag il est temps que nag maanaam il faut pour ñu leeral askan wi. waaw que ni tey gedd sa oto. waaw nee ngay dox ngir assemblée dox. ñaar laa ciy tontu. waaw mais est-ce que sa dox boobu dina tax dina tax assemblée dox aussi ah parce que loolu nga wax ne nee nga da ngay dox ngir assemblée dox mais est-ce dox boobu dina tax assemblée dox. ah suñu suñu mambamba. nangu na dem Gabon ngir diine gi dox. xam naa ne jamono jooju amoon na ñu doon wax est que nangu dem Gabon dina tax diine ji dox est-ce que nangoo dem Mauritanie dina tax diine gi dox. est-ce que bañ lànk ba tëdd ci suuf ci li France bëggoon ci réew mi est-ce que dina tax réew mi dox donc ñun dañuy ji rek ñun dañuy ji rek dañuy ji ci xur yi dañuy ji ci tund yi dañuy ji ci taax yi attention dañuy ji ci école yi dañuy ji ci assemblée nationale dañuy ji ci askan wi dañuy ji ci presse bi est-ce que xam nga ne yaa ngi may laaj am na laaj boo xam ne laaj naa ko gouvernement bu Sénégal nee ko yow gouvernement du Sénégal bés nga dóor ay feus feus bu buur news bu nekk nga dóor Adja Ndiaye bu dakaar Actu bés bu nekk ngay gazé ay journalistes dans l' exercice de leur fonction. teg ay journalistes. dama bëgg yow gouvernement du Sénégal nga ñëw assemblée nationale ñu ñu ñu wàcc tali bi ñu wàcc tali bi parce que bëgguma tooñ dama ne damay dox pour dem assemblée nationale mais pas bari mais pas bari tali bi pour dem assemblée nationale. ma ne gouvernement du Sénégal ñëwal assemblée nationale ñëwal assemblée nationale ngir nga wax ñu. foo teg ñenn ci agent des forces de défense et de sécurité ñuy gazer les journalistes ñuy nangu seeni micro ñuy nangu seeni caméra ñuy nangu seeni cassette ñuy nangu seeni téléphone yenn say nga dóor Adja Ndiaye bu Dakar Actu ba mu dem hôpital nga dóor Feuz ba mu xam ñu naan déet nga tëj Pape Ndiaye nga tëj Coro Mandela ah ngay ngay ngay harcelé Moustapha Diop bu Walf ak Babacar Diop bu Kewulo mais avec toute énergie ñoom c'est injuste xool bu réunion amulee on le dénonce bu réunion bu réunion bu ré bu amulee assemblée nationale nu ñuy waxtaanee la situation des journalistes ñuy waxtaanee la situation des journalistes qui sont malmenés qui sont maltraités ah est-ce que xam nga ne posé naa question boo xam ne dama ne gouvernement du Sénégal ndax mu nga ñu wax grenade lacrymogène yi ngay sànni ban composition chimique la waaye ba tey gouvernement bi nee na moo lànk ndaxte président assemblée nationale bëggul woote réunion yow grenade lacrymogène yi ngay mëkk ak ñun ci manifestation yi yow xamoo ban jeexital la am ci yow. baaxul moom léegi ñun askan wi ñun ñooy fay grenade lacrymogène yi ñun ñooy jënd grenade lacrymogène yi kon am nañ sañ-sañ xam. grenade lacrymogène yooyu lan moo ci nekk. ban conséquence la am ci koo xam ne amul benn jàngoro. ban conséquence la am ci koo xam ne dafa dafa asthmatique wala am ay infection respiratoire aiguë ba tey ñu ne du ñu woote réunion est-ce que xam nga ne posé nañ question ci li nga xam ne moo jëm ci ñàkkum courant yi nga xam ne li ëpp ci mille villages yi nekk Sénégal amuñu ko. il nga wax aussi ci chômage bi. loolu le chômage d'accord extrême des jeunes. fan lañ koy waxtaanee assemblée nationale. est-ce que xam nga ne posé nañ ay questions ci lu jëm. kon promobile bi daal pour yow amul njëriñ wala njëriñu bariwul. xam nga man du ma nii liste amul benn président bu Sénégal nekkee Sénégal boo xam ne mun nañ wax ne deful dara amul. amul lu mu bon bon bon bon luñ ko sanctionné sanctionné sanctionné lu ko askan wi wan ginnaaw. président day def dara waaye li ma wax mooy li mu war a def boo ko méngalee ak li mu def mu ngi mel ni tokk ci biir géej ndax lan bàyyi suñu alal jox ko impérialiste yi jox ko doxandeem yi ndax lan astuut bi fi des ñu koy séddoo seen biir di ko détourner seen biir te assemblée di contribuer ci détournement yi xoolal non non xool leen xool leen lii moo xew ci réew mi lii moo xew médinant moo xew feneen ak feneen lii dañ ko war a waxtaane lii dañ ko war a waxtaanee Médina bii 24 12 euh, euh, mois sur 12 Médina bi ndox bi day ball. Gueule Tapée 12 mois sur 12 ndox bi day ball ñu ngi jëm ci ñu ngi jëm ci inondation ñu ngi jëm ci inondation fan la ñuy contrôler l' action du gouvernement à l' assemblée nationale fan la ñuy laajee gouvernement assemblée nationale. assemblée nationale boobu bu ñu ko tëjee ñeenti weer du dëgg du yoon gis ngeen nañu waxante dëgg ñu bëri ci ñun yëgoon nañ ne assemblée depuis décembre doxul. lan moo tax defoo ci dara sénégalais nga lan moo tax defoo ci dara moom sénégalais la ki may seetaan lan moo tax defu ci dara sénégalais la na ñu bàyyi toog seetaan bi. lu ñu defuñu ci dara nañu bàyyi toog seetaan bi mooy parce que tout simplement. waaw am ci yéen confiance. waaw que ni yéen suñu kàddu lañ leen waaw duñ leen jiital par exemple di leen teqatal. waaw on vous fait confiance bett ñu am yeneen ñu ngi gërëm askan wi ci kóolute boobu waaye bu ñu demee ba jëmmi jamono ngeen yëg ne benn weer assemblée dajewul. ñaari weer assemblée dajewul ñetti weer assemblée dajewul ñeenti weer assemblée dajewul waru leen toog seetaan waru leen toog seetaan seen assemblée dañ ko tëj de seen assemblée dañ ko tëj est-ce que xam ngeen ne seen assemblée ñeenti weer ngi ñu tëj ko ñeenti weer ngi ñu ngi tëj seen assemblée nationale est-ce que xam ngeen ko ñeenti weer ñu ne duñu ubbi assemblée bi ba pare ñuy séddoo suukaru koor biir assemblée ba pare ñuy séddoo ay billet rom ak ay billet député Macky Sall yi nee nañ xaalisu assemblée nationale kenn du ko contrôlé te bu xaalisu askan amul ndekki askan wi amul añ askan amul reer ñoom ñuy sàcc suñu xaalis biir assemblée ñuy détourné suñu xaalis biir assemblée naan ba pare kenn du ko contrôlé loolu moo tax ma ne tey damay dem assemblée dox ngir naqarlu assemblée bu bu leen ñu donc euh, mooy réew gis nga mekki dégg nga li xew ci circulation bi du ngeen li xew ci circulation bi mais ñu ngi mais justement euh, honorable euh, pourquoi ñuy jàpp ay koo xam day dawal moo xam borom oto wala borom kii policier bi te du ko attesté d'après comme li waa li waa ji wax loolu est-ce na ah jaadu man daal damaa jàpp ne agent des agent des forces de défense et de sécurité bu jàppee nit ba jël xaalisam da ko war a jox kayit ngir mu leer ko ne xaalis boobu ci keesu état la jëm. ngir mu leer ko ni xaalis boobu ñuy fayloo borom cak-cak bi bu ñuy fayloo borom charrette bi bu ñuy fayloo. Euh, borom camion bi ak borom oto bi xaalis boobu ci keesu état lay dugg bu amulee kayit ça veut dire que xaalis boobu duggul ci keesu état du policier yëpp am na policier yu jub ñu ngi leen di féliciter di leen di encourager di rafetlu seen taxawaay. mais amoon na benn benn projet bu ñu wax naan léegi ku ñu jàpp mën mënoon nga fay par Orange Money wala par wala par par Free Money wala par Wave bu nga defee mu ñëw directement ci kaa ci ci gafa nga nguur gi. c'est que xam nga loolu lu muy wane bokk na ci li nga xam ne président Macky Sall da ko lajj. lajj si cent pour cent muy xeexum guerre bi muy corruption bi président Macky Sall mënul xeex corruption mi xam ngeen lu tax moom moo indi sàcckatu liste yeewi askan wi biir palais ñu gis ko ak enveloppe ak nu mu munti demee dafa corrompre kooku maanaam le premier corrupteur dans ce pays c'est le président Macky Sall ndaxte moom moo corrompre kooku ba kooku jël liste yeewi askan wi yóbbu ko kooku mënul xeex corruption or réew mi bu ñu buggee mu jakk bu ñu buggee mu gën a neex bokk na ci li nga xam ne dañ ko war a saafara dañ ko war a faj ci réew mi bokk na ci corruption waaye kii di corrompre mënul xeex corruption kii di corrompre mënul saafara corruption donc loolu laa am li ma lay tontu mais grawul yàggatul xam lu tax yàggatul 2024 jot na Macky sàll mais pare na du nekk candidat mënul nekk candidat duñ ko seetaan mu nekk candidat donc bu ma nekkoon moom naa góor góorlu ba juróom-ñetti weer yi ma dese mu nekk juróom-ñetti weer yoo xam ne dina xaw a bu ko deful moom de toute façon pare na benn Bokk Yaakaar pare na moom Macky Sall pare na askan wi d'accord dinañ jël réew mi teg ci loxo keneen ndaxte dañoo sonn dañoo damm dañoo tàyyi mënatuñu nangu lii. honorable euh, ci affaire dialogue dialogue bi Macky Sall wax na. waaw mënu ci sori lu bëri ñaar laa ciy wax benn. maa ngi bokk Pastef Pastef mooy décider ndax day bokk ci dialogue bi am déet donc maa ngi xaar waxtaanu Pastef maa ngi bokk FRAPP maa ngi ñëw maa ngi bokk FRAPP FRAPP mooy décider buñ leen invité ndax dañuy dem ci dialogue bi am déet waaye man li ma ci xam mooy président Macky Sall kàdduwam dafa woyof ni dunk président Macky Sall lu mu wax du ko def lu mu def du ko wax président Macky Sall lu mu wax du ko def lu muy def du ko wax donc kooku kooku nga xam ne waxam du goudron kooku nga xam ne président Macky Sall nga xam ne waxam jarul dóor sa doom bu la woowee dialogue ah waxuma bu waxuma bu ñu dem de waxuma bu ñu dem waxuma bu ñu dem waxuma nañu dem waaye kooku daal ah fukki at ak ñaar a ngi mu ngi nekk président waaye daram leerul. waaw léegi mais avis bi ma ci am mooy war nañ xoolaat l'aménagement du Sénégal l'aménagement du cadre de vie yaa ngi wax lii mais am na lu ko gën a métti plus de vingt cinq pour cent de la population du Sénégal sur moins d' pour cent du territoire muy Dakar donc lii mënul mënul jur yu mel nii. téeméer boo jël ci askanu Sénégal ñaar fukk ak juróom yi ñu ngi biir Dakar te dakaar ci suuf matul sax un pour cent donc mënul ñàkk jur ay jafe-jafe te président Macky Sall loolu yitteelu ko ndaxte kii doon wax ne la vision du président Macky Sall s'arrête jam ñaajo dafa juum la vision du président Macky Sall s'arrête à sa poche. à la poche de ses patrons impérialistes. waaw bu ko neexee waaye askan wi moom xam na lu muy dund. askan wi moom mais xam na ne moom amul courant xam na ne amul ndox xam na ne amul jiw ju baax xam na ne amul paj mu doy xam na ne amul case de santé wala poste de santé wala hôpital yu doy xam na ne amul sage-femme yu doy xam na ne amul ay médecins yu doy amul infirmier yu doy xam na ne amul jàngalekat yu doy xam na ne jàngalekat yi mu am amuñu formation bu doy askan wi xam na ne amul courant bu doy d'accord boo jëlee dëkk bu mel ni Boutoupa Camaracounda 24 villages zéro électricité nga jël dëkk bu mel ni Enampor 19 villages ma xaw ma ñaar wala ñett ñoo ci am courant nga jël dëkk bu mel ni Niassia 23 villages mais xaw ma ñett ñoo ci am courant. loolu liggéey foo dem ci Saloum loolu liggéey foo dem ci Saloum foo dem ci Kédougou foo dem ci Saint-Louis foo dem ci maatam foo dem ci Ranérou Ferlo foo dem ci Fatick noonu la léegi nag situation bi bu tëddee nii. situation bi bu tëddee nii dañ ko war a waxtaanee dañ ko war a diisoo dañ ko war a pencoo waruñu nag tëj les espaces de dialogue ah maa ngi ñëwaat ci dialogue bi waaye yow président Macky Sall qui empêche le dialogue de se dérouler à l'Assemblée nationale kooku bu wootee dialogue ndax dinañ ko gëm ndaxte bu ñu fàtte ne yéen journalistes yi saay bu président Macky Sall waxee dialogue. yaay gaynde booy na def. wallaahi yow rek la ñuy ah, waay wallaahi waaw prestation waay la bëgg a waay. ah macha allah. merci beaucoup ñëpp mel ni yow. Sénégal dem kanam. jërëjëf. tey nag damay dox dem assemblée nationale. ngir xamal leen ne ñeenti weer a ngi assemblée doxul. ñeenti weer amul ndaje. te ñu ngi séddale suukaru koor. ñu ngi séddale ay billet mag ak billet rom. te ñeenti weer doxul. loolu du dëgg yoon. bu leen ñu seetaan nag bu leen ñu seetaan di nga teg sa tànk bu ko teg di nga teg sa tànk bu ko mas a teg wallaay la yow rek la ñuy topp bu ne commandant continuez continuez continuez monsieur waaw s'il vous plaît wool ma wool ma gars yi ah. la police et la et les journalistes waaw voilà moom am na droit mu def marche am nañ ko bàyyi mu dem yéen bu fekkee da nga am lu ngeen di jël ngeen bàyyi bu ngeen eggee bu paree ngeen jël ko vous avez compris mais marche bi nii il faut l'éviter merci beaucoup mon commandant très mbokk internet yi. voilà dama voilà mbokk internet gis ngeen ñi ngi doon waxtaan léegi ak euh, euh, commandant bu police bu commandant bu police bu bu Médina euh, mi ngi mi ngi ñaan la la presse ne leen bàyyi leen ko mu def mu def li mu bëgg def maanaam mu dox dem yoonam. mais bu ñu àndeek moom day am attroupement day am mbooloo te su kerogee yoon dina fatt te gis ngeen tali bi nu mu xatee nii déjà mu loolu la ñaan loolu la bu gul Euh, mu ñu am problème entre euh, euh, la police et et la presse donc daf ñuy ñaan ñu bàyyi ko mu dem yoonam dox doxam bu ko defee ñun tam ñu xaar bu ñu bu àggee assemblée nationale lu ñu ko bëgg laaj ñu laaj ko fa. comme comme li ma koy waxee toujours rek ñun dañuy def suñu liggéey nag c'est pas à la police dañu nous def leen nii wala def leen ne le waaye tam ngay waxante doxante njëkk waxante lu baax dafa da dafa baaxoo ci réew mi. ba moom police nekk suñu kilifa bu ñu ñaanee ñun dañ koy may waaw ñun ñun man personnellement boog man su ma ñaanee moom le commandant suma ñaanee dama koy may euh, parce que tout simplement euh, dafa war a am benn collaboration boo xam ne dafa war a di ko am entre euh, les forces de l'ordre et de défense ak la presse bi nga xam te nii bu ñu nee def suñu liggéey comme ñun ni ñu ko bëggee ñoom en grande partie lu lu lu bëri lañ ci bien que ni nag. ñoom ñooñu lay dina am ay téqatal wala ay gàllankoor yoo xam te nii fan yi ñu ko teg ci kaw ci kaw presse bi ba pare man di ko ñaawlu tout la presse di ko ñaawlu euh, comme nii mu ko woowee nii ñaan ñu ñu may ko ñoom itam nañu doxalee ëllëg loo xamante ni nii bu ñu bu ñu bu ñu gàllankoor bu ñu buntu xatal bu ñu sànnee làkk bu ñu def dara loo xam ne nii euh, ci suñu wàllu euh, liggéey lay doon. donc voilà mbokk internet yi ñun ñu ngi nii di dem assemblée nationale xëy na Guy Marius Sagna bu fa yeggee ci destination dinañu tegal li nga xam te ni bien que ni wax na lépp ah li ñuy waroon wax yëpp wax na ko xam naa bu ñuy àggee à destination dinañ wax lépp li nga xam te ni euh, xëy na euh, finalité bi muy xaar euh, loolu lay loolu wuyu loolu lay wuyu voilà xam nga wuyu xamoon wund wolof moom c'est pas du tout facile ah. nii dugg nag dem lijjanti loolu ci biir ndaxte xeex bi ci biti ak ci biir. assemblée nationale bi doxul. assemblée nationale bi doxul te du dugg du yoon. moo tax ma dox tey pour ñëw assemblée nationale yéen askan wi bu leen ñu seetaan ndaxte ñu ngi séddale ay teranga fii ñu ngi séddale ay suukaru koor fekk ñu ngi fay quatre-vingt-dix mille policiers auxiliaires yi quatre gis nga euh, Guy Marius Sagna ànd nañoo moom ca euh, tàmbali dox bi euh, ba mu ba mu paree ba jeex léegi nag mi ngi noonu yéen a gisee noonu ci buntu assemblée nationale bi noonu muy muy dugg bu ko defee donc. mu mu ngi noonu taxaw ci buntu assemblée nationale bi. voilà Guy Marius Sagna mi yéen nañ ko seen noonu gis nga euh, premier vague presse bi gars yi si kanam dañ dañ leen a woon ñun tam ñu def suñuy pexe guy nga noonu di dugg. voilà mi ngi noonu gendarme baa ngi koy ubbil gendarme baa ngi wax pour ñu ubbil ko. voilà mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bëgg a wax ak euh, mi ngi bëgg a wax ak euh, kii bi waaye je pense que voilà policier policier gàntal nañ ko ko policier gàntal nañ ko ko euh, c'est un commandant de la police bi nga xam te ni xam naa ma nekk commissariat bu bu Dakar Plateau monsieur le commandant. oui ça va nañ leen baax mais respect. ça va bien. am ko tuuti rek wàcc. <laughs> voilà ñu ne ko bon donc euh, fii euh, ci buntu euh, buntu assemblée nationale bi moom en tant que député bañ ne nekk du wax maanaam mu accordé fi benn interview waaye itam ñu ngi fii la presse est là donc mi ngi fii. mbokk yi mbokk yi wax ji benn la. policiers yii doon leen dax ci yoon bi ñenn ñi ñu ngi leen di fay quatre-vingt-dix mille par mois. quatre-vingt-dix mille lu mu mun boobu ñu ngi séddale ay billets Rome ak ay billets Makk ak ay suukaru koor biir assemblée nationale te jamono joo xam ne assemblée nationale doxul woote wu ñu plénière loolu du dëgg du yoon ñu ngi may laaj depuis tey si suba lan moo tax may dox pour dem sama bërëbu liggéeykaay laaj bi mooy lan moo tax askanu Sénégal ñeenti weer ngi seen assemblée doxul ñu ne pat ñu ne tekk ñu ne méng donc man waru leen ma laaj askan wi ngeen war a laaj seen bopp yéen ngeen war a laaj ndax war ngeen nangu assemblée nationale bu ñu tëj ñeenti weer moonte ci ñeenti weer yi ñu ngi fay ay payoor député yi ñu naan déet ñu ngi xëccoo suukaru koor ñu naan déet ñu ngi xëccoo ay ay billet Makka ak billet Rome ñu naan déet man may premier vice président kuréel bi nga xam ne ci assemblée nationale ñun ñooy commissaire aux comptes yi maanaam ñun ñooy xool ndax xaalisu as askanu Sénégal bi ñu jox assemblée nationale ndax ndax ñu ngi koy saytoo ni mu waree est-ce que xam ngeen ne commission boobu mu daje. lu tax ndaxte ñu ngi sàcc ndaxte ñu ngi luubal la question mooy a qui profite le crime mais à un voleur. Oui. commission contrôle et comptabilité de, du budget de l'Assemblée nationale bu doxulee xam leen ne sàcc moo fexe ba commission boobu bañ a dox. mais est-ce que convoqué nga convoqué nga man maay premier vice président aw ma sañ-sañ woote. président bi moo war a woote te président bi moo ak Macky Sall ñoo bokk te segam président Macky Sall moo mun xëcc ki nga xam ne moo toogaloon Yewwi Askan Wi ca maatam mu jox ko ay listam sàkkaamaa ku mu bokkal parti sàkkaamaa ki nga xam ne dafa dugal armée ngir mu tànn ko moo tax ñun askan wi war nañ delluwaat suñu xel ci li xewoon le 12 septembre ñu naan ay xeex la ay xulloo dëgg la xeex pour xuloo pour am président boo xam ne du tëj assemblée nationale ñeenti weer fii am na ay am na ay journaliste am na ñu nekk ci site yi yoo xam ne amu leen soixante quinze mille par mois am na wala amul bëri na ci yéen amu leen soixante quinze mille ñu ngi joxe suukaru koor cent mille francs député bu nekk xam ngeen muy ñaata seize millions seize millions ñaata projet la mun financé ñaata billet màkk ak ñaata billet rom ñu naan déet ñun nëbb xaalisu assemblée nationale ndaxte ñoom ñu ngi koy noos ñu ngi koy séddoo di ko sàcc di ko luubal moo tax bëgguñu woote réunion ndaxte man bu ma nekkee ci commission bi rax si dolli ma nekk premier vice président ah fiscine bu nekk dinañ wax fan lañ koy dugal balaa ñoo joxe xaalis suukaru koor naa leen ne luy ndeyu ñuy jox député suukaru koor fekk ne askan wi ndekki motul. brièvement reeram assuré wul. brièvement en français. mais añam amul ndawal amul légume ñankatang dong la. boo amul suukar amul xorom paccoo boobu la ñu wax ne dafa war a jeex assemblée du pour séddoo suukaru koor pour séddoo jafe-jafe askan wi la. assemblée du pour séddoo billet mag ak billet ram pour séddoo jafe-jafe askan wi la est-ce que xam ngeen ne du ma wax français est-ce que xam ngeen ne laaj naa gouvernement bu Sénégal lan moo tax. ñuy dóor feuse lu tax ñuy dóor feuse bu bu bu buur news buy def liggéeyam lu tax ñuy dóor ba mu dem hôpital Adja Ndiaye bu dakaar Actu muy journaliste comme yéen lu tax ñu leen di gazé di leen di matraqué ci manifestation yi ñuy nangu seen micro ñuy nangu seen caméra laaj naa laaj boobu ba tey ba tey ba tey gouvernement nanguwul ñëw président assemblée nationale nanguwul woote réunion kon bu yóbboo ngeen xam ne lii xew fii musiba ñu ñëpp la laaj naa leen laaj nañ leen lan moo tax ngeen di jàpp Babacar bu Kewulo lan moo tax ngeen di tongali Pape Ndiaye bu Walfadjri lu tax ngeen di tongali Thioro Mandela bu Walfadjri lu tax 1-2 ngeen coupé signalu Walfadjri lu tax 1 ngeen nangu caméra ñi nekk ci terrain bi mel ni bëggu leen ñu wane li am ñu ne ñoo lank du ñu ñëw parce que président du woote yëpp wax naa ko donc bu yeboo ngeen xam ne ñàkk réunion bi ñun ñëpp la laal donc la question c'est pas lan moo tax may dox tey la question mooy lan moo tax askan wi di toog seetaan ñeenti weer seen assemblée doxul dama dox tey dem sama bërëbu liggéeykaay ndaxte sama bërëbu liggéeykaay di assemblée nationale doxul te dama bëgg mu dox ndaxte mu dox mooy njëriñu askan wi mu dox mooy njëriñu presse bi mooy njëriñu béykat sàmmkat ouvrier licenciement yi bëri na.